baabul li ab bunt la bunt bi moom dafa aju ci idda li ñuy wax idda jàpp idda boo déggee baatub alxiddatu li jublu ci yoon mooy yoon daa sàkk diir boo xam ne bu ñu fasee jigéen ji mbaa jëkkëram faatu faaw rek bu toog diir boobee balaa wutiwaat jërëm jëkkër balaa mën kon jigéen buñ ko fasee mbaa jëkkëram faatu diir ba nga xam ne moom la war a toog door a mën a wutiwaat yeneen jëkkër diir boobu lañ tuddee idda ci gënu gàtt ay wax nag ci idda ci mboolem jigéen ñi mooy ku ëmb ku toll ci ëmb moo xam dañ koo fase moo xam jëkkër mu dafa faatu am doom nga rek mooy jeexuk iddaam bu ëmbee benn doom rek bu doom ja juddoo ba lépp génn ci bitti rek idda ja jeex na bu ëmbee lu ëpp benn doom nag niki ñaar mbaa ñett li feeg yépp judduwuñ ba set wecc idda ja jeexagut duñu sart nag mu am doom doom ja mat sëkk mbaa dara saa yu juree loo xam ne xam nañ ne doom la woon rek doon sax te aw lumbu deret woo xam ne buñ ca sottee ndox mu tàng du seey ñu xam ne loolu doom la woon rek idda ja dal nay jeex waaye da nga takk foofu ne bu nee jigéen ji ëmboon bu amee doom rek idda ja jeex na loolee mu ëmboon dañ koy bàyyale nga waral idda ja mel ne bu fekkee amoon na jëkkër te nga xam ne yoon nee na lii mu ëmboon jëkkëram joojee lañ koy bàyyale kon bu amee doom rek idda ja jeex na ba mu des nag jigéen joo xam ne dafa rëbboonteeg jëkkëram ni nga ko yosoo woon léegi moom jëkkër ja waat na ne jurul loolee jigéen ji ëmb ci kanam yoon waaye ndegam jigéen ji itam waat na ne moo ko jur saa yu amee doom rek moom jigéen joojee ñu ne moom iddaam jeex na yoon mënu koo bàyyile ki waat ne juru ko waaye nag yaayam waat na it ne kookaa ko jur te yàllaa xam la ca biir kon nag ci àtte bi dañ koy def ne doomi yoon jigéen jooju bu amee doom rek iddaam jeex na mel ne ñu xam ci lu wóor ne ëmb bii njaaloo la mel ne jigéen bi amoon na jëkkër jëkkër ja jote woon naag moom waaye da koo laablu maanaam mooy dafa teewlu ba gis ne soxnaam si gis na baax mu daal di xam ne ëmbut soxna sa walbatiku njaaloo daal di ëmb ñu xam ne ëmb boobee moom nga bàyyi ko ci njaaloom googee gannaaw ba bu jëkkëram joojee faatu woon kon day mel ne it day faatu la war a def bu fekkoon ne it jëkkëram jooje da koo far fase ndax mer kon it day fase la war a def waaye su boobaa mucc ëmbam boobee maanaam am doom ci ëmbum njaaloo boobee du tax ñu ne iddaam jeex na bu dee ba jëkkër ja faatoo la nga xam ne it day faatu lay def dañuy seet bu doon iddaw ci ay weer mu yeenti weer ak fukki fan ak am nga doom moom ca njëkk a jot rek bàyyi ba àgg ca la ca mujj su njëkkee am doom te amagul yeenti weer ak fukki fan bàyyi ba am yeenti weer ak fukki fan idda ja door a jeex bu amee yeenti weer ak fukki fan te ëmb ba judduwut mu bàyyi ba am doom bu doon nag jëkkëram jooja da koo fase waaye faatuwut nga xam ne nga xam ne kon idday fase la war a def dañ ko wax ne ko yow yàpp ci laab ngay topp mooy da ngay gis baax wàññi ko muy benn dellu ko gisaat muy ñaar dellu ko gisaat muy ñett li tax luy faral la tudd di ko wax ak waxaat te gannaaw bu amee doom ba weesu dereti wasin wa da cay tegaat yetti laab am na sax téere yu wax ne day wàññi am nga doom bu laabee ca dereti wasin wa mu génn mu tegaat ca yaar waaye boo xoolee nag ca sharaat ak dusuux yi dana wane ne foofa daal lañ sukkandikoo moom mooy am nga doom ba laab ca dereti wasin wa bu ko wàññi ak laab da cay tegaat nag yeneen yetti laab kon daal li waxagun moom lu yomb jàpp la mooy rek ka war a iddawu bu fekkee daa toll diggante bu amee doom rek te doom ja ñu koy bàyyale ka ko tax di iddawu bu amee doom rek idda ja jeex na mu ne nag bu fekkee jigéen ja dañu koo fase am nay teqale teqale ki njëkk wax nag mooy kañu fase naagu ci gisati baax xos am nag juróom-ñaar fukki at moom jàpp nañ ne du gisati baax kon kooku iddaam yetti weer lay doon koo xam ne it daa ndawe ndawe ba du gis baax moom it buñ ko fasee yetti weer mooy doon iddaam koo xam ne it ni ko yàlla bindee mooy far bu gis baax sax ñu koy tuddee ci arab al baghlatu moom it suñ ko fasee yetti weer rek mooy doon iddaam ci jamono yi jaam amee duñ ci teqale muy gor ak muy jaam faaw rek moom yetti weer mooy doon iddaam moo tax mu ci takk-takk dañuy wax ne jigéen bu tolloo ci mata gis baax la ca dag la ca dayo ba mu am juróom fukki at lu mu fa gis baax lañ koy jàppe bu ñu ko laaj jigéen ñi ba xam lu mu doon maanaam nag léegi rek deret yi jàngoro feeñu ko waaye moom daal ndegam toll na ci mata gis baax te weesu ko juróom fukki at la muy gis baax lañ koy jàppee su amee juróom ñaar fukki at nag jëm ca kaw la muy gis duñ ko jàppe baax te duñ ko laaj jigéen ñi ba xam luñ cey wax diggante nag juróom fukki at ya ak juróom-ñaar fukki ya la fay gis ci deret la ñuy laaj nag jigéen ña ba xam luñ cey wax moom lañ koy takkee mu ne ku iddawoo ay weer nag moom bu fekkee dafa tàmbalee ci coruteel weer kon moom yetti weer yëpp day tegaloo waaye nag bu fekkee dafa tàmbaleewul ci njëlbeen weer kon yaari weer ya moom nañ war a tegaloo rek la ñuy tegaloo lu ñu toll rek mu jàppee leen noona su duggee nag ci weeru ñeenteel wa daal cay fay la ko rawoon ci weeru jëkk wa mel ne buñ ko fase woon ci weeru tamxarit fekk ay fan jàll ca kon diggi ak gàmmu moom yaar yee yooye nañu mel rek la leen di bàyyi amulu soppi bu duggee nag ca rakk ji gàmmu nga xam ne moo sës ci gàmmu muy weeru ñeenteel wa ci boo tàmbalee waññee ci tamxarit ca rakk ji gàmmu woowee ca lay faye fan ya ko rawoon ca tamxarit boo bañ koy fase li mu ne nag du wàññiwaale bis bañ ko fasee nee nañu takk-takk bi mooy bu ñu ko fasee diggante timis ak ñu nodd fajar noddu salaatu kon bëccëg ba mu jëm dana ko wàññiwaale mel ni bëccëg yi ñu yendu tey gaawu la bu jant bi soowoon nag laata ñu noddu salaatu ñu fase jigéen kon bu dee wàññi ay bisam dibéer la koy tàmbalee gannaaw bu ñu noddee salaatu nag da dale foofe ba jant bay so kuñ fa fase rek bis boobee du ko wàññiwaale day tàmbalee ci bis ba ca topp mel ne bisub dibéer bi bañ xasee salaatu moom ba jant bay so kuñ fase ci diggante boobu rek bay wàññi say bis da ngay tàmbalee altine bañ a tàmbalee dibéer bi mu wax nag say bu jàpp ko ci iday faatu gee ñuy def ñeenti weer fukki fan moom it noonu la fajant rosoy ak fajar di fenk mel ne jëkkëram faatu ci diggante boobu bëccëg ba mu jëm da koy wàññiwaale bu jëkkëram faatoo na ci gannaaw bañ salaatoo jëm ci bëccëg ba bu ba jant bay soo du wàññiwaale bis boobee daa mel ni nag daa am ñu wax naa iday faatu moom dañ koy def ak jàppandal ba bu jëkkër ja faatu woon ci takkusaan it du tee mu wàññiwaale bis boobee waaye li wax fi moom mooy yëpp a yam mbaa alquru day firi ak laab di firi mbërëg waa maali nag moom dañ koy firee laab te bañ koy firee mbërëg bi alquran ne wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quru'in ñoom dañ koy jàppee yetti laab di dox ci diggante ba mu gisee daraje ak ba muy gisaat jeneen diggante boobu moo tudd ak laab jigéen ja ñu fase nag bu fekkee dafa toll ci gis baax iddaam day doon yetti laab maanaam dañ koy fase bu fekkee ci laab la toll woon day wàññi laab googee muy genn su gisaatee baax ba laab ca mu daal doon yaari laab bu gisaatee baax nag ba laab ca mu doon yetti laab waaye jàpp nag ne laab gu ne balaa mat deret ja ci war a topp daa tàmbalee génn mel ne bu ñu nee ñu ngi ko fase ci laab mu wàññi ko bu gisaatee deret da laab ngay door a mat ñu ne genn ngoog deret jooju mu gis nag nga xam ne gannaaw fase gi moom moom la njëkk a gis bu ca laabee dana wàññi laab googee waaye nag balaa laab gaa mat dafa dem ba deret toppaat ca jàppal ne laab gu ne moom wala ñoo jàpp ne mat na deret ja sus ci moom tàmbalee feeñ tàmbalee génn yooyu jamono nag dañ daan teqale jigéen joy go ak ja nekk jaam bu fekkee ne gor la lay jàpp yetti laab ci yooyu jamono waaye bu fekkee jaam la woon ci yooyu jamono yaari laab rek mooy doon iddaam buñ ko fasee moom jàmb ci yooyu jamono fekk mu toll ci laab day wàññi googa bu gisaatee deret nag ba laab ca deret jooje rek dal nay am yaari laab da cee teg nag sart yi tax jigéen de war a jàpp idda ba ci jëkk mooy jëkkëram joojee doon mukallaf waaye gone moom bu mënee jote itam bay joteeg soxnaam it day jàpp ne joteeg gone moo ñàkk a jote ñoo yemoo ndax mënta am doom kon gone moom bu fase woon soxnaam it du tax soxna sa war a jàpp idda te it wóor nu ne jëkkër jooje nekk mu kàllaf mënoon naa jote waaye bu dee koo xam ne wóor nañ ne amewutoon sawukaay amewutoon yaari waa yàlla yàllaa ko boole jigéen ji rek ci sëy bu waaye amewutoon yooyu xam ne ne kon mënta jote kon bu fasee soxnaam soosee soxna saru jàpp idda fekk it yëg ne wéet nañu wéet goo xam ne jote xaj na ca bu ñu wéetee wéet bu gàtt lool ngir su gàtt gàtt soo xam ne jote xaju fa mbaa ngir ba yàgg na waaye ay jigéen ñu baax ñu ñu rus seen teewaay dañ faa nekkoon googu wéet dañu jàpp ne daañu rus jigéen ñooñee ba duñ mën a jote fa seen kanam faaw rek na wéet am goo xam ne jote mën na ca am ci sawukaay fekk it soxna sa ñu mën a joteeg moom doonte sax ci at moom kàlla fi wut waaye jëmm ji mënees na joteeg moom loolaay tax ñu di ko jàpp loo idda waaye bu doonee gone goo xam ne mënees na joteeg moom ku joteeg moom it da ngaa forcé rek waaye mënees na joteeg moom di su ko jàppaloo idda bu ci sart yi dajee daal nga xam ne jëkkër ji kàllaf la bu gone la ñuy jotee muy sawukaay liggéey ak moom ne ku ko ñu góob bi soxna si itam ak nag ñu mën a joteeg moom donte at ya bëriwut ñu yéet yéet goo xam ne itam jote googu mën na caa am kon bu jëkkër ja fasee faaw jigéen ji war a jàpp idda nii nga ko déggee bu demee nii nag nga xam ne yéet nañ yéet goo xam ne jote mën na caa am bu góor gi ne woon jotewu maag moom dara ci gannaaw bu mu ko fasee soxna sa ne wax na dëgg jotiwut ak man dara itam waaye wéet gii dama ne nii moom sart yi daje ci faaw rek ñu jàpp loo jigéen ja idda balaa mën a wutiwaat jëkkër rek faaw mu jàpp idda bu ñu nee nag wéet nañ wéet goo xam ne jote mën na caa am te ñoom ñaar kenn ku ci ne wax ne jotiwul ak sa moroom dara ñu ne it kon idda du mën a ñàkk du tee nag kenn ku ne ñu gàll la lay yàlla ci loolee nga wax jigéen jooju du ko tee jàpp idda waaye dañ koy wax ne ko ndegam nee nga jotiwul ak moom dara ku ñu fase te jotiwul ak kala fase dara ak may rekk dox seen diggante kon warul laa jox can gu mat dalay jox genn wàllu can ndegam nee nga it jotiwut ak yow dara kon day na la idda warul la yoon ma waral ci yow idda rek waaye ci ni nga waxee warul laa iddawu te nag koo xam ne wër ta iddawu di su ko jox ab dund mbaa koddaay mbaa ab dëkkuwaay ñu ne itam nag jëkkër ji ndegam nee nga jotiwul ak moom dara doo ko mën a fay li daa joxe woon sart yoo xam ne mooy tax idda war jigéen ji mu ne nag bu sart yooyu xëttee mbaa benn xëtt ca jigéen ja idda du ko war lu may nag mu ne moo ma wax ne sama jëkkër ji wéet naag man ba joteeg man yëgunu fenn fu ñu wéetee dangaa sartoon ñu wéet wéet goo xam ne jote xaj na ca moom nag ñu yëgunu fenn fu ñu wéetee waaye moom nee na sama jëkkër ji wéet naag man ba joteeg man kon faaw ñu ne ko war ngaa iddawu ndax nee nga nee nga wéet naag yow ba jotee yow kon faaw nga war a iddawu bul fàtte ne fii nga toll moom mooy yëguñu fu ñu wéete ba dotee mën a am seen diggante jigéen bi wax ne dote naa ak man su fekkoon ne nag góor ga moo ne woon jote na ma ak moom soxna sa weddi ko waaye ñun yëgunu genn wéet goo xam ne jote mën na ca am kon jigéen ja moom du war a iddawu te daañu wax góor ga ne ko dagam nee nga jote nga ak moom nag jox ko can gu mat sëkk te du iddawu sax waaye diirub lu toll ne idda war nga koy jox dund ak koddaay ak dëkkuwaay lim ci tegit mooy yëguñu fenn fu ñu wéete ba jote mën a am waaye nag jigéen ji ëmb na te góor ji miimu ko ne juruma ko ndegam jigéen ji ëmb na ni sama jëkkër ji ma ëmbal te nun sax yëgoonu fenn fu ñu wéete te jëkkër ji weddiwu ko kon bu ko jëkkër ji fasee rek mu war a iddawu iddaam nag mooy rek mucc doomam joojee bu amee doom rek idda ja jeex na bu fekkoon ne nag góor ga da koo weddi daal di waat ci kanam yoon ne juruma ko kon jigéen ja du war a iddawu du war a iddawu nag waaye du sañ a wuti jëkkër te loolee mu ëmboon demul ba juddu li fekk rek mu ngi ci ëmb bi du mën a wut jëkkër waaye nag ba mu ëmbee ndegam jëkkëram waat na ci kanam yoon ne juruma ëmb bi jigéen ji idda du ko war waaye kon laablu moo koy war bu ñu itam idda du ko war laabloo koy war mook jëkkëram jooju mu rëbboonteel du ñu donante du ko mën a fay li mukk mukk xam nga ne te jëkkër ja dund du ko ca war ba dëkkuwaay kañu fase bu fekkee ne dafa amee dereti jàngoro joo xam ne mënu koo xàmmeeg dereti dëgg-dëgg mbaa kañu fase day ko gis deret da koo jafe lool lool te moom nàmpalut xëy na leneen moo tax daal waaye dug nàmpal xam nga nàmpal dana taxa ñàkk gis baax ñaar ñii ñoo bokk àtte buñ leen fasee dañu toog juróom-ñeenti weer ndax ndegam ëmb moom gën gaa yàgg daanaka juróom-ñeenti weer lay doon dañu toog juróom-ñeenti weer ba xam daañu gis dara am déet bu ñu amee juróom-ñeenti weer nag te gisuñu dara li mu ëmb di teg cee yetti weer muy idda bu ko defee mu daal nekk at su at ma matee rek mën naa daal di wuti jëkkër loolu nag balaw raq yi xam yooyu jamono muy gor ak muy jaam ñoo bokk boobu àtte koo xam ne daal yàllaa ko nattoo muy gis dereti jàngoro te mënu koo xàmmee dereti dëgg-dëgg wala nampal deful dara waaye gis deret moom da koo jafe lool benn amul benn sabab ndax la ko waral moom jug nampaale leneen la rek nampaale dana ñëw ci kanam atte bu mooy rek na toog juróomi yenti weer bu gisul dara nag teg ci yetti weer muy at ñu ne ko mën nga daal di wuti ca kër soo gisoon deret nag ca diiru at moomee doon ci sax daa dem ba ci bis ba ci mujj ca at ma mu gis deret day daal di wàññi deret doojee muy génn di séentu nag dereti ñaareel ak ñetteel maanaam da nga gis na deret rek moom te at mi ma tëgut doon ci ca mujj mujj la it na wàññi deret joojee tey séentu jeneen ba xam bu gisaate jeneen muy ñaar mu séentu dereti ñetteel ba mu gisee jenn joojee di séentoo nag bu fekkee ne gisaatul deret gisaatul deret ba am lu matul at kon sëy boobu wuti jëkkër mën naa daal di sëy moom daal bu gisee deret ca biir at ma ñu ne ko del séentu dereti ñaareel mu séentoo séentoo gisul dereti ñaareel ba far am atum lëm kon idda ji jeex na mën naa daal di sëyi bu gisoon deret ñaareel ñu ne ko toogal séentu deret ñetteel mu toog di xaar xaar ba teg ci am atum lëm te gisul deret ñetteel ja na daal di wuti jëkkër nga xam ne kon gis ga deret ak mat at ga daal lu ci jëkk rek ca lay yem jigéen ji nga waxoon léegi mooy ki nga xam ne gis baax da koo jafe te moom nampalut ñu ne ko woon da ngay toog atum lëm lijjantil ko bu gisee deret na muy def ak bu ko gisut mu ne kooku nag bu toogee ba at ma mat te gisul deret ñu ne ko kon day idda ji jeex na mën ngaa wuti jëkkër mu ne bu ko jëkkëram joojee fase woon maanaam bu amaatoon jëkkër jëkkër joojee fase ko mu war a jàppaat idda duñ ko wax ne ko jàppaatal am atum lum duñ ko wax ne ko jàppaatal atum lum duñ ko wax ne ko jàppal rek sa idda yetti weer ba xam boo amee yetti weer te gisoo ci baax sa idda jeex na waaye nag diirub yetti weer yi kat boo ci gisee baax da ngay daal di wàññi muy benn ngay séentu baat ba xam da nga gis beneen baax mu ñaar ñett dañ ko daan toppee ndéet su fekkee ne itam séentu nga séentu gisoo baax nga wéyati rek ba at ma mat bu at ma bu at ma matee te gisoo baax it lañ waxoon rek idda ja jeex na bee ñu weesoon moom jigéen ja danoon gis dereti jàngoro di mënta xàmmee ju jàngoro ja doonut jàngoro wala gis baax jafe woon ko lool te nàmpal waralu ko muy bëgg a wax nag bu fekkee ne jigéen ji danay gis dereti jàngoro waaye nag mën na koo xàmmeek ja nekkul dereti jàngoro wala jigéen ji gis baax yóbbu ko waaye tool gum tool ci nàmpal rek moo ko waral ñoom ñaar nag moom ay laap la ñuy topp te buñ dee iddawu ay laap la ñuy topp ku fase soxnaam tasem payli moom li feek idda ji jeexut dañuy donnante mu ne nag bu soxna sa dee nàmpal nga xam nàmpal ga day yéexal idda ja te mu seet ne am na lu tax mu bëgg idda ja gaaw a jeex mel ne bañ mu donn ko wala moom boo boole ci ñoom yoroon dañu doon ñeent te du mën a takki ab ñeenteel wala am na ku mu bëgg a takk koo xam ne moom moom mii dañoo jegee ba mëni su leenu boole te mu gis ne bu nangoo doom ja itam doom ja bàyyee nàmp du ko wàññi dara kon mën naa nangu doom ja ndax bu jigéen ja bàyyee nàmpal googee idda ja gaaw jeex maanaam mu gaaw gis baax idda ja gaaw a jeex bu soxnaam foofu doon nàmpal keneen moo xam dañ ko cay fay moo xam fayuñu ko ca ba tey mën na ko ko aaye ne ko bàyyil ki ngay nàmpal ndax bëgg rek idda ji gaaw a jeex mu ne sax bu soxna si waxante woon ak keneen ne ko naa la nàmpalal nga fay ma moom jëkkër ji mën naa dindi loolee mu waxante kookee ndax bëgg rek su bàyyee nàmpal nga idda ji gaaw a jeex waaye nag ci sartu rek ni mu ko waxee in lam yamburra bil waladi balaa sañ a nangu doomu jooja doon nàmp ndax bëgg gaawal idda ja mu jeex day fekk nangu ga xaay gone ga nàmp yaayam du ko wàññi dara dara lii moom yàgg nañ koo wax moo jigéen buñ jotee moom jotee bu aay moo xam njaaloo la moo xam ak jaawale la jaawale wala jigéen ji am ku ko këf dem ak moom ba yàgg nga xam ne jàpp nañ ne joteeg moom xaj na fa wala am ko jaay jigéen ji nga xam ne gor la am ku ko jënd defe ne sañes na koo jënd bu dee jamono yi jaam xewee wala sax bu dee ci jamono yi njublang rek jaam xewut dara xewut waaye am na kuy jaay jigéen rek am ku ko jënd ci moom wala fekkoon ne jullit ñi am nañ jàppanteeg ñu dul ay jullit am ko ñu jàpp ci jigéen ñi jullit ñi ak lu ko mën sabab daal bu fekkee ni jigéen ji dañoo joteeg moom jote bu aay faaw ñu war koo laablu laablu goo xam ne day mel ne idda ni idday toll lay toll da nga waxoon ne ku ñu fase te muy gis baax noonu lay iddawoo kuñ joteel jotee bu aay noonu itam te muy gis baax noona lay laabloo ka nga xam ne moom daawul gis baax ñu waxoon ko ñetti weer te idda ja bu joteeg moom jotee bu aay it faaw day toog ñetti weer ñu jàppe ko ak laablu lañu waxoon ci ka nga xam ne dafa gisul baax ngir lu mel ne jàngoro mbaa lu ko nuru ñu waxoon ko ne toog am at juróom-ñeenti weer wóor lu ba xam teg ci ñetti weer muy at yëpp ni nga ko weesoon léegi ci gannaaw rek noonu nga koy delloo fee moo tax bi ñu jotee moom noonu nag jotee bu aay bu ci ëmbee falanu daa juume rek te do buñ jotee moom jotee bu aay moo xam njaaloo la moo xam siif la moo xam leneen la bu ci ëmbee buy am doom rek laablu ga mat na ndax laablu bokkut ak idda kon kañ joteel jotee bu aay boobee bu ci ëmbee itam bu amee doom rek moom da doon laablu te laablu ga daal nay mat bu doon nag kay iddawu la ñu wax ne day am doom ba noppi nigaar nag ba gis baax yetti yoon ñu dellu fàttaliwaat ne ka jaaloo mbaañ jotee moom jotee bu aay bu dee gis baax te ñu ne day gis baax yetti yoon loola muy ka am jëkkër ak muy ka amul jëkkër ñoo ca yemoo képp képp danga mu koy gis baax la rek moom day gis baax ñetti yoon ñu door ne laablu ga mat na lañ jàngoon ci ashal loola mooy jamono yi yoon gi dox bu jigéen ja njaaloo ñu topp ko ba war ko rey ca njaaloo ga dañu ne bu gisee baax benn yoon rek doy na daal di ñuy xam ne amut daal di koy mën a géttal géttaluk rey googee waaye bu fekkoon ne sax yooyu jamono waree su ko rey dañ ko war a caw ay yar rek yetti laab lay am ñu door ne laab lu ga mat na jigéen jooju nga xam ne dañoo jotee ak moom jotee bu aay noonu li fekk muy def laab lu googu bu fekkee amoon na jëkkër itam jëkkëram du sañ jotee ak moom te laabluwut noonee ba noppi mooy faaw mu bàyyi ba mu laablu ni ñu ko waxee ba laablu nga jeex bu fekkee amutoon jëkkër it kenn du ko sañ a takk faaw rek ñu bàyyi ba laablu nga jeex kenn du ko sañ a wax sax ne ko dama laa bëgg a takk te fekk muy laablu noonee moo ku nekk ci idda ñoo yemoo waxam nañ ko ci gannaaw ñu dellu fàttalee bu baax ne jamono yooyu nga xam ne ci la war a laabloo ku ko ca takk rek yem ci waaye jotewul ak moom dara ndegam ci lañ ko yëg day jàpp ne takk ga baaxut daal lay wax ne la bu jotee ak moom dara sori ko ba laablu lu jeex bu laablu ko jeexee nag ñu mën la koo may may gu baax waaye nag jotoon nañoo teqale foofu ne bu fekkee daal ku njaaloo nga moom nga xam ne daal la ca nekk moo ko ca def bañ ne na jigéen ji laablu laata laablu koy mat buñ ko ko mayee moom moomee xam ne moo la ca nekkoon mu weesu nag may nga ba jotee ak moom it du tax mu araam ko araamu dappetu day mel ne laablu nga moo yàqu rek bu laablu waatee ba laablu nga mat di tey ñu mën ko koo may waaye bu fekkee ne kañ ko may ba mu jotee ak moom bokkut ak ka maye nag moom yàlla maanaam ka ca defoon la ca nekk nga xam ne moom doonu ci woon dara ñu may ko ko nag ba àgg ci jotee ak moom da koy araam araam ak dappetu nin ko daan baamoo ko baamuwaat lu bare bare léegi mu ne itam jigéen jooju ñu joteel jotee bu aay bu amee jëkkër bu jëkkërum jotee ak moom bu fekkee ni ëmbut ëmb bu fis fis bu bàyyi ko ci jëkkër ja dogu nañ ci ne dañu doon doon jabaram jote ak moom lu araama araam lay doon bu fekkee ne nag ci ñu joteel jote bu aay laata ñu jotee ak moom jote bu aay boobu moom jëkkër ji fekkoon na mu jotee ak moom boobu ëmb ëmb bu fis fis ñu xam ne ëmb bi ci moom jëkkër ji la bàyyi ko kon am nañu ne muy jotee ak moom agul ci araam benn muy ak sib rek mbaa muy ak ñàkk sib sax maanaam doon lu dagan am ñu ne nag doonte sax soxnaam soosu fekkoon na mu ëmbal ko moom jëkkër ji ëmb bu fës itam ëmb bu fësu fës itam dañoo war a araamal ci moom rek muy jotee ak moom te demul ba laab lu nga mat ndax li lay fës di mburu ab ëmb mën naa am direct biir bu fënki di mburu ab ëmb te doonu ko te boobaa day mel ne kon mi nga doon jotee ak moom te ëmbutoon ëmb bu fës daanu doon kay ku ëmb waaye fekkutoon mu ëmb loolu lañ ko wax ci gannaaw bu fekkee jigéen bi ñu koy fasee daa fekk mu toll ci laab day wàññi laab googee su gisaatee deret mën nga koo jàppee deret ju njëkk gannaaw bañ ko fasee gis nga deret ju njëkk joojee mooy wane ne am na genn laab gu mat deret joojee feeñ nag xam ne moom li ko gis gannaaw bañ ko fasee ba demee ba gisaat yeneen deret jàppal ne kon am na yaari laab yu mat deret ñaari joojee nag su demee ba laab ca dugg na ci laabu ñetteel waaye nag balaa laab gaa mat dafa dem ba gis dereti ñetteel ja saa yoo xam ne daal ñu ngi ko fasee moom ci laab dana wàññi laab googa waaye nag jàppal ne genn laab gu ne balaa mat daa àgg ci gis deret ji ci sës mooy tax ñu ne laab googa mat na kon buñ ko fasee bu gis jenn deret am na genn laab goo xam ne sotti na deret joojee bu demee ba laab ca balaa laab googaa sotti mu gis dereti ñaareel dereti ñaareel joojee bu ca laabee balaa laab gaa sotti mu gis nag dereti ñetteel buñ ko fasee woon nag ci jamono yu mu tolloo ci gis baax moom balaa mën a wutiwaat jëkkër dem ba gis dereti ñeenteel ja ndax buñ ko fasee ci mbërëg faaw mu bàyyi ba laab ca deret joojee maanaam gis ca ak laab te bu ca gisee ak laab balaa laab gaa mat mu àgg ci gis dereti ñaareel ja deret ñaareel ja bu ca laabee balaa laab gaa mat mu gis dereti ñetteel deret ñetteel bu gisee ak laabam nga xam ne moo ci war a mujj balaa laab googaa mat mu gis dereti ñeenteel moo tax mu ne fabir rabixati ñu teel laa fàttali bu baax ne la jigéen gis baax rek wala mu toll ci wasin rek bu fekkee ne amul leneen luy tey ñu maye ko mënees na koo mayee toll gam toll ci gis dereti baax rek mbaa dereti wasin du tee ñu mën koo maye ni ki jigéen ju jëkkëram faatu fekkoon mu toll ab diggante bu amee doom rek mën nañu ko daal di mayee deret jay génn ci wasin wa du tax ñu nañ xaar ba deret ji jeex ñu door koy mayee ci takk-takk dañuy wax ne saa yoo xam ne góor gi aaye nañ ko joteeg soxnaam rek yooyu jamono ku toll ci tolluwaay boobee tax ñu aaye jëkkër ji soxnaam deesu ko mën a maye ba mu des yent yent yi mooy toll ci gis baax ak toll ci gis traité wasin ak toll ci koor ak toll ci lix ci kaaf yent yi bu ci jigéen tolloo jëkkëram du sañu joteeg moom waaye du tee nag ku toll ci yent yi ñu mën koo may jëkkër bu amul beneen gàllankoor jigéen gis rek baax du tee ñu mën koo maye jigéen gis deret wasin du tee ñu mën koo maye jigéen toll ci koor du tee ñu mën koo maye jigéen toll ci listikaaf du tee ñu mën koo maye lu bokk te yent yi rek moom bu ñu nee jigéen jëkkër mënta jotee ak moom rek xamal ne tolluwaay boobu ku ca toll dootu la mën a maye deret ja nga xam ne nag moom bu feeñee mooy àggale ay laabam ba mat ñett la wax ne bu koy door a gis daa muuñu ñu daal koy may jëkkër fa saasa ndax lañ ne woon bu dee ci wàllu jaamu yàlla moom bu jigéen gisee baax lu mu néew néew ak lu mu yàggadi yàggadi ñu jàppee ko baax wàññi ko muy deret ci wàllu jaamu yàlla ga ni kii bu dee koor koor ga yàqu na te faaw mu war a sangu cangaayu farata muy wéy bu dee ci wàllu jaamu yàlla waaye nag bu dee fii ci tudd iddaakuk laab lu moom bala ñoo jàppe loolee deret di ko wàññi day ma bisug lëm mbaa mu ëpp ko mbaa mu dem ba sori ci bis bu dee fii ci wàllu iddaak laab lu moom dogu nañ ci ne deret ja sotti ko benn yoon rek mbaa mu am diir boo xam ne waxtu rek la tollool mbaa matu ko kenn du ko jàppee ne deret la ba di ko wàññi bu deret ja tàmbalee génn itam dem ak moom ba am bisub lëm ñu dogu ci ne moom deret la daañu ko wàññi su amee moom lu ëpp waxtu nag di wéy waaye taxul mu sori ca bis ba xam ne ay heure daal la am ay waxtu foofu la ñuy laaj jigéen ñi ba xam barab bu ne ak jigéen ña fa nekk te amu xam ca loola moom la ñuy laaj muy seen aada bu ñu nee heure yi mu am ak moom jeex day fi moom daañu koy def seen aada la ñu daal di wàññi jooy deret ndax moom nee na seen aada la bu ne fii day moom loolu xamuñu ko fi am rek heure yi toll moom daal di jeex day du aada yi waa fii kon duñ jàpp loola mu deret kenn di ko wàññiwaale dañu wax nag laaj ay jigéen waaye nee nañu genn jigéen rek ju maandu buñ ko laajee mën a doyloo ay waxam ndax loolu xibaar la bukkut ak seere nga xam ne moo aajowoo ab yim ak lu ko nuru mu ne laab na ci dereti mburoog fii ci boo dee tudd iddaak laablu mook laab ga nga xamoon ca ba ñu tudd wàllu jaamu yàlla ga ñooyam gën ngaa néewi laab mënta manki fukki fan ak juróom na nga waxoon ci wàllu jaamu yàlla ne jigéen buñ ko nee yoon topp na la ba ne sa deret jeex na faaw nga teg ci fukki fan juróom door a gisaat deret waaye boo ko gisee itam ñu koy tuddee jàngoro itam diggante bi mëtul fukki fan juróom fii it noonu la mel bu dee toll ci idda mbaa laablu bu gisee deret ba laab ca ñu tàmbalee woon ñu fan ya laata fan yi mat fukki juróom mu gisaat deret deret joojee mu gisaat kenn du ko wàññi kenn du ko faale bu jigéen jàppee idda moo xam idday fase la moo xam idday faatu la ba noppi ca ñu tegaat ca nag diir bu yàgg amaatul jëkkër nag daal di am doom mel ne idaw na ba idda ya noppi amaatul jëkkër ñu teg ci at mbaa ñaari at mu door a am doom mu ne kon jëkkëram ji ko yoroon rek moom lañ koy bàyyale bu dee dund nag te weddi ko miim ko daal di waatoo moom ci kanam yoon ne juruma ko ndegam waat na gis ko ko mën a bàyyale waaye ndegam moom ba mu génnee ci idda jaag léegi amaatu fi jëkkër moom lañ ko mën a bàyyale lay xew ca biir moom yàllaa koy xam waaye moom it nag bu waatee miim rek yóbboontee jigéen ci kanam yoon kenn du ko ko bàyyale ndax dañuy jàpp ne bu ñu nee gis baax tey wane ne jigéen ji ëmbut te ba muy idawu gisoon na baax itam mees naa ëmb ba noppi di gis baax loolaay tax ka idawu ba gis baax gannaaw idda ja bu amee doom te amaatul benn jëkkër lu mu yàgg-yàgg te aggu ci juróomi at aggu ci gën jaa sori yàggaayu ëmb te moo juróomi at li fay aggu ci rek dañ koy bàyyale jëkkëram ja ko mujjoon a yor bu jëkkër ja miinee nag waat ci kanam yoonu juruma ko kenn du ko ko bàyyale mel ni kon nag bu jëkkër joojee faatu woon doom ji dañ ko koy bàyyile te kon boo dee miraas sax boo boole ko ci doom yooyu donn ndax ne kon bàyyam nekk fi bay waat ne juruma ko ku yobbu limaale ko ci doom ya bu jigéen toll woon ci idda nag ñu ne araam na kenn di ko takk teewul am ku ko takk bu fekkee ba nga koy takk booba gisu ko doon baax benn yoon bu ëmb rek ñu jàpp ne jëkkëram ci njëkk yi moo jur ëmb boobu jigéen jooju ñu takk ci idda nag bu fekkoon ne dafa gisoon baax ba noppi kooku door koo takk ca idda ja buñ ca tegee lu mat diiru ëmb juróom-benn weer yu manque juróom fan mbaa lu ko ëpp mu daal di am doom kon jëkkër yu ñaareel ji muy kooku ku mu ca takk moom la ñuy bàyyale doom jooju ndax dañu ne bi mu koy takk daa fekk jigéen ji gis baax benn yoon mu wane ni moom mi ëmbut bi mu ko takkee itam ba jotee ak moom teg na ci lu mat diiru ëmb juróom-benn weer mbaa lu ko ëpp door am doom kon moom jëkkër yu ñaareel jooju mooy baay ba su fekkoon ne nag dafa am doom te yàggewul ne diiru ëmb ni kii di ko ku ñaaral ci takk dëgg la sax fekk na jigéen gisoon baax waaye dañ caa teg nag yetti weer mbaa yent rek mu daal di am doom ko it jëkkër ji jëkk jë lañ koy mën a bàyyile ndax ku ñaaral ki moom bi mu takkee léegi ëmb fi am tu doom dafay xajut jigéen bu jàppee idda li feeg mi ngi yëg ci boppam li nuru ëmb di sikk sàkk ëmb la am du ëmb du sañ a wut jëkkër faaw rek mu dem a dem ba àgg ci gën jaa yàggi ëmb muy juróomi at ci waxi ñenn ñi ñeenti at ci waxi ñenn ñi waaye say boo jàpp juróom kon ku ne jàppal idda nga yëg ci sa biir loo xam ne ngay wóoloo di ko ba xam ëmb laam déet jigéen ju mel noonu faw rek mu néggandiku ba mu wóor ko ne li ci biiram ëmb la mbaa du ëmb wala mu dem a dem ba am juróomi at gën jaa yàgg ëmb bu amee nag juróomi at nga taxaw foofu teeylu bu baax a baax su fekkee ne na mu doon sikki sàkkaa yokkuwul dara daa wàññi ko sax mbaa boog noonu rek la mel kon moom mën naa wuti jëkkër waaye bu fekkee noonu dafa yokku mel ne biir ba dafa gën a rëy mook mu yëg ci biiram loo xam ne yëngu toog doom la ñooyemoo bu sañ a wuti mukk mukk jëkkër ak lum yàgg yàgg yàgg te demul ba am lu wóor ci boppam